seetkat bii di Mara ñu ràññee ko loolu ci plateforme digitale yi ndax révélation yu muy yàgg di def jëmale ko ci célébrité yu nekk fii euh, ci Sénégal moom nag euh, Mara Niass Fadam 2 moom moo ko invité woon tey ci page TikTok euh, mu nekkoon rek di def ay révélation ci mbër yu nekk ci làmb ji ba tax na kenn ku mu defal révélation nekkul kenn ku dul rëg-rëg moom Mara Niass nee na rëg-rëg dafa teel a jël soxna loolu nee na ay mbokk yi euh, rëg-rëg bu ñu saytu woon mbir bi bu baax dinañ taaxirlu ñaari at wala ñetti at ci kanam dog ko jëlal soxna moom nag nee na sax soxnaam si mu gisal rëg-rëg kii mu takk ni nee na nekkul woon kooku lañu ko wonoon ndax nee na moom ku mu gisal rëg-rëg ab nasaraan la Mara nag def na beneen révélation jëmale ko ci adversaire wu rëg boobu di Sa Thiès nekk rak euh, ci Balla Gaye 2 moom nag euh, nee na gis na couronne bi euh, Sa Thiès téye ko waaye nee na ñii di waajal Sa Thiès ay combat bu ñu bëggee daal loolu am dañu ko war a séparer rek ay waajtaay maanaam nekkul waajtaay bi ñuy defal kii di Balla Gaye 2 moom la ñu ko war a defal ndaxte seeni mbir du benn doomu Pikine bi di Ama Baldé moom it tamit Mara àdduna ci ay mbiram ndaxte nee na kii di Ama Baldé euh, dañu ko teel a ni dafay dooni roi des arènes te loolu dafa ëlbatiku nekk ab cat ci moom moom nag Mara Niass na gis na ñaari yoon kii di Ama Baldé tey couronne bi waaye loolu daf ko mujjee euh, rëcc euh, te nag bu ñu fàttalikoo combat bi nii nga xamante ne Modou Lo ak Ama Baldé dañu ko waroon a bëre dañu ko fomm ñaari yoon Moustapha Niass nag ñëw na ci kaaw ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass nee na kii di adafas euh, dañu ko teel a jox loolu euh, kii euh, di Zarko nee na loolu arrangé wu ko waaye nee na waxul ni benn yoon adafas dafay daanu ci combat boobu waaye nee na Ada nag moom du dooni ab mbër tant que daanuwul première fois ci làmb ji nee na itam kii di Ada am na benn sëriñu pël bi nga xamante ne dafa farlu loolu ci mbiram tey daf koy ñaanal bu baax a baax ba sax daf ko faf samp ah, nee na nag kii di Ada moom warul war benn yoon sëriñu pël boobu bu bëggee mbiram baax ñu des nag euh, ba tey foofu ci écurie Fass ndax euh, kii di Mara Niass nee na kii di Gris Bordeaux moom nag euh, lu koy lor saa su nekk mooy Gris Bordeaux ku sàggan la ndax nee na Gris Bordeaux bu ñu koy jàpp ci ay dàllam lañu koy jàppee wala bokk ci tubéyam ba tax na nee na kii di Gris Bordeaux dafa war a farlu bu baax a baax ci fu muy teg ay dàllam ak i tubéyam Mara nag nee na kii di Gris Bordeaux moom dafa am lu jafe ndax dañu ko samp fii euh, ci Ndakaaru euh, waaye euh, loolu taxul ni Gris Bordeaux dafa wéy rek di am ay jafe-jafe te loolu nee na dara waralu ko lu dul dañuy gor ay tànkam te nee na Gris Bordeaux moom lañu koy nax lu bëri bëri ci wàllum sarax ba ci sax combat bi nga xamante ne moom moo mujj contre Balla Gaye 2 ndax nee na kii di Gris Bordeaux moom warul di tour deret moom daal lu koy gën a projet mooy euh, mi génnee ndox ñu dellu nag fi nga xamante ne moom mooy géejawaay ci école de lutte Balla Gaye ndax kii di Mara Niass nee na euh, Balla Gaye 2 balaa muy doonaat roi des arènes euh, faw rek mu jël beneen soxna nee na daal Balla Gaye 2 dafa war a takk ñaareel dafa war a wutal rakk kii euh, di Boury li ndax nee na loolu moom mooy lu koy mottali Mara Niass nee na fi nga xamante ne foofu la Balla Gaye 2 toll moom mooy ci ñetti tànk nee balaa muy am ñeenti tànk rek euh, mën a taxaw euh, jub xocc fow euh, mu jël beneen soxna denc ko te nee na ku mu war a denc nag dafa war a nekk ab soxna nee na ku sell la war a doon des nag ba tey ci wàllum mbiru Balla Gaye 2 moom Mara Niass nee na kii di Balla de 2 warula ubbi saison bi ndaxte loolu arrangé wu ko ci wàllum biddéewam moom Mara Niass nee na kii di Balla Gaye daal um, weerum janvier ak février 2023 waru ce uh, bëre ndax bu bëri bu ci bëree rek uh, du nekk li gën ci moom uh, ba tax na moom nee na loolu arrangé wul kenn ku dul Boy te nag ni ko waa axlu làmb yëpp xamee combat Balla Gaye 2 ak euh, Boy Niang Gaston Production taxawal na ko ci 1er janvier 2023 euh, Mara Niass nag nee na couronne bi euh, di roi des arènes daf ko gis rek euh, muy jaabante bu baax a baax ci diggante euh, Pikine ak Guédiawaye waaye taxawagul ba tey ndaxte nee na kii di Boy Niang moom dañu ko dig ni dina nekk roi des arènes waaye nee na mbir boobu nekkul lu leer ci boppu Boy Niang moom nag Mara sax nee na kii di Modou bu taxawaatee ci arène bi di bëre lu koy jaaxal loolu la ndaxte nee na daal fu mu nekk nii dafa nekk. ci fin de carrière moom nag Mara Niass nee na dañu ko wan Modou mu taxaw ci ab tali nekk ak ay nasaraan di leen di gasloo et pax Mara Niass nee na révélation yi mu def euh, tey yëpp moom ragalu ci ku ko ci vaar ndaxte euh, nee na Sénégal wëngal képp moom rek moom moo fi sëriñ buy vaar boppam balaa na di ko def ndaxte nee na balaa muy wax dara daf koy xool xoolaat ko seet ko seetaat ko saytu ko saytuwaat ko euh, ba tax na moom Mara Niass nee na ci saison bi ñuy dem ci làmb ji incha allah maanaam atum 2023 daf cee fas yéene dugg ci làmb ji jaaxal ñëpp.